à l'ordre du jour ouais. et comme d'habitude hein alors Salma de nous rejoindre sur le euh, plateau avec sa bataille nañ ko mais mais tu es magnifique ce matin ah oui oui tu es africaine aujourd'hui très africaine gis naa la t'es magnifique toi aussi hein oh, c'est toi si yow la loo sol mu rafet si si yaram bi la merci sama yaram bi la déggal sama yaay doom ma lay bu baax ah di la di la jox sa wàccuwaay defal bi këpp turandoo mama ajuma maman aljuma waaw maa ngi lay bigg. ndax dañoo am ndam nag. waaw <laughs> ñaar xam nañ. ñaar xam nañ wallaay mi ngi noonu mbir mi ñor nañu lool. ma lay dañoo ñor. <laughs> ma lay ziar maman nee na ma nuyul ma Salma. ma ne ko mm-hmm. Salma da lay bëggee wallaay maa ngi koy bëggee bu baax bi affaire yi wàcce daa zibilé ne sama yaay sama yaay. waaw wallaay moom rek laa ci xalaat. di la wax félicitation ah le reste mooy dàkkaat sax incha allah donc kii ñi ñi ñi nga xamante ne kii nañu rek ñu ngi si bain bi dinañ comprendre li ñuy wax. mu ngi noonu di leen di ziar bu baax. di mm. ziar euh, euh, Seydina Omar Ba meilleur Rome bàyyi Seydina Ousmane. mu sell bi di jox sa wàccuwaay bu baax di ziar téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ne ñoo di am loolu moom fi mu moom day wëy moom. bàyyi Seydina Ousmane mu ci kattanal yàlla. kenn munu ci dara da nga day dugal ku rek. focus saa bu ñu xëyee dugal ku comme ah, ñu focus yow bàyyi Seydina Ousmane bu sell mi nañu dooree Walf Quotidien ngir jukki xibaar dafa mel ni sax sa tur sa turandoo doom moo fës noonu ci à la une. naa jégal rek. kenn mënu ko bañ a tudd ci mu réew. da ngeen ay tuut tànk rek. dañ di gone jërëjëf eh, dañ koy tàmbalee yéen kay giir Walf Quotidien dafa xëyee dellusiwaat ci lu jëm ci dogalu àtte bi nga xam moo tuggee ci cour suprême finalement ñoom mujjee nañoo gàntal Ousmane Sonko wax ne du mën a bokk ci élection présidentielle yi di ñëw noonu la ko yéen kay gi xëy fësale cour suprême mujjee na ànd ak cour cour d'appel ci décision boobu nga xam ne jëloon nañ ko yéen kay tamit xëy dellusiwaat gi xëy fësale Ousmane Hadjibou euh, euh, Soumaré na Euh, kii di bu Ahmed Boun Abdallah Dionne dafa redoubler Souleymane Ndéné dafa redoubler ba ci Abdou Mbaye euh, yéen gi xëy tey ji daal ci amal ab taxaw seet leen aussi loo xam yéen gi xëy na ko fësal te mooy Anta Babacar Ngom ne jamono ji dafa mujjee sauver jigéen ñi ndax moom mooy benn jigéen bi nga xam ne ni euh, mujjee naa jàll ci parrainage bi léegi noonu la ko yéen i di wàll fukkati ñu xëy fësal ci mbiru Prodac Prodac ak yi nga xam war na ko yi xëy fësale loolu nag doon loo xam ne lu métti la maître Khoureyssi Ba doon kenn ci avocat yi lay Ousmane Sonko ba tax mu yëkkati ci ay kàddu lépp mu ngi ci yéenekaay gii di l'enquête ñu dem ci euh, xët bi di Sud Quotidien Sud ne cour d'appel waaw cour comme mujjee na euh, dëggal dogalu àtte bi nga xam moo tukkee woon fële ci cour d'appel Ousmane Sonko out maanaam Ousmane Sonko du bokk ci élection présidentielle yi ñëw noonu la ko yéenekaay gi ñëw nooy la ko yéenekaay gii di Sud Quotidien xëye fësale soxna Aïcha 24 heures yéenekaay dafa xëyee dellu si waat ci lu jëm ci audience cassation bi nga xam ne nañ ko amal ni ki

loo xam ne ni cour d'appel jël nañ ko comme dogal àtte gars yi dañ juróom benn ci parrainage a noonu la ko yéen euh, mm-hmm. euh, euh, gi di la tribune xëy fësale maam las yéen kaay ne Mame Mbaye leen éliminé Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi di ñëw noonu la ko yéen a kaay gi xëy fisale yéen a Ngom kon finalement moom mujjee Euh, jàll ah, ci kanamu ay ténor yoo xam ne dañu ràññee ci wàllu politique bi yéenekaay gii di laas ci <laughs> ba tey mu ngi ci course la ko yéenekaay gi xëy fësali ndax nee na bi ba fii daal mënu ko xañ bokk ci élection présidentielle yi yéen ndaay nag euh, mu ne euh, yeneen ko noonu noonu la ko yéenekaay gi di yor yor xëy fësale yéenekaay gii di le quotidien ne ñi moom daanaka seen bokk ci élection présidentielle yi ñëw wëtu wóorul yéen gi moo xëy fasal lu mel ku ci mel ni Diomaye Faye ku ci mel ni Mimi Touré Abdoul Mbaye ñoom ñi dañ leen mujj a bloqué leen bloqué nag mooy ay doublon yéen gi moo xëy fasal lu mel jamono ju jële Anta Babacar Ngom ma ngay fesal boppam Thierno Cissé dañ ko mujj teg loxo ndax lan ndax ay faux pare yi mu doon déposé yéen kaay gii la côté ñaay ci loolu xëy fasal tey ji euh, yéen a kaay gii di suuf saa xëyee dellu si waat ci entre Babacar mi ne jamono ji daanaka dafa bett ñu bëri ah. noonu la ko yéen a kaay gii di suuf saa xëy fese la ci jamono jooju li nga xam ne ni Anta Babacar Ngom mu ngi ay kàddam kon di bàkku ci jamono jooju Ousmane Sonko moom ñu ngay briser rêvam maanaam yéenam ak bëgg-bëgg moo nekkoon bokk ci élection présidentielle yi ñëw waaye finalement loolu du mujj antu yéen a kaay gii di source a moo xëyee fësal loolee. direct news direct news dafa xëyee fësal ñeenti candidat yoo xam dañoo bokk ci élection présidentielle yi nga mën seen parrainage dafa jàll. Mhm. waaye nag loolu loo xam ne lu xaw a jaaxal ñu bari la ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu politique. ba ñu samp laaj bëgg a xam Boubacar Camara mi Anta Babacar Ngom Ngom bi Euh, Daouda Ndiaye euh, ba ci Me El Hadji mais ñii ana kan moo nekk ci seen ginnaaw mm-hmm. ndax ci jamono ji nga xam ne ñii ñu ngi valider seen seen ci jamono ji nga xam ne daanaka ay politiciens la woon nekk ci terrain politique bi nekkoon ay ancien premier ministre ñu xañ leen ñu bokk élection présidentielle yi euh, maanaam xañ leen seen parrainage jàll fii ba keroog mu sotti am na daal ñu nekk ci ginnaaw ñi noonu la ko yéene kaay gi direct news xëy fësal ñu dem ñaar fukki jour ak juróom-benn yi nga xam ne ni euh, ñoo la xaar euh, ñaar fukk ak ñaar daal ñoom ñoo si présenté woon euh, ci stade maître Abdoulaye Wade ñoom nag fu mu toll nii benn gis-gis la ñu am te mooy gañuwaat Coupe d'Afrique bi le noonu la ko yéenekaay gi di la Soleil xëy fësale ñu gi di stade xëy dellusiwaat ba tey ci défi bi nga xam ne suñu kay ni nañ ko te mooy fexe ba dem ci Coupe d'Afrique ba fexe ba Coupe d'Afrique boobu lee sax mën a desaat ci seen yoxoo noonu la ko yéen kay gi xëy fësale ku ci mel ne Sadio Mané doon kenn ci la gaynde yi ma nga cee wax ne la mu bëgg daal lee noonu la ko yéen kay gii di moo tax fu mu toll boo demee ci INSEP bu Paris ma nga fay rey boppam bëgg daal euh, forme bi mën a ñëwaat noonu la ko yéen gi xëy fësale Euh, yéen a kaay gi xëy dellu si waat ci Modou Lo mi ne jamono ji neexul bu neexul waaye dab na Balla Gaye 2 mm. ndax am na ñaar fukki victoire ak ñaar comme ni ko Balla Gaye 2 amee a kaay gi euh, euh, na Balla Gaye 2 waaye Balla Gaye 2 ka daan <laughs> loolu wares na ko mën a teg nag di koy fàttali bête noire am la rek waaw bête noire am la li ko ko ba tey te daan na ko ñaari yoon <laughs> loolu tamit Modou ak loo loo zibile zibile foofee ca Pikine bul fàtte ne Balla moom dalaa daan daanaat. kooku de xorlu ku ku mer rek. <laughs> ab supporter rek dañu làpp rek. <laughs> ay géej waaye de moom du sa ñeexu ñebe. arène daa mel ni arène bi daa mel ni bi ñu installé Pikine di jiwu leen dal. dañ ko faa war a dindi. fa nekkee peut être amuñu ndam. gars yi naan fekk si leen dóor leen. dañ faa xoowal am na lu ñu fa suulal. waaw <laughs> ah, da ngeen comme gagné wuñu te ñun ñuy agressé jël leen seen arène yóbbu. <laughs> dëgg yàlla ah, waaw mais nañ ko fa bàyyi. ñu ko fa te amuñu ci bu doon sax Ama Baldé moo nekk kii. Mhm. roi des arènes nga ne foofu doon sax baax na fa fie fab la. Eh, fekk si leen dóor leen rek dañu faa suulal da <laughs> nañ ko fa jëlee dem. a góorgóorlu rek fexe jël es bi eh? jël làmb jël ko au rek. ah ñu ko làmb fa nekk wax dëgg yàlla di leen représenté yeewu eh, ko jël au sérieux rek loolu tamit est-ce que yeneen mbëri tamit duñ jéem a nekk ibaadu bàyyi la ne Modou Lo defal xar rek ku la ne ibaadu Modou Lo borom sekki borom gi yu bëri borom xànjar yeeg yii nii Modou Lo daanaka yaram bi kii la woon di waaye léegi dara nekkul ci yaram ma ne ah xanaa ah, waaw mais non ça ça dépend parce que aussi xam nga xar nga foofu moom ça dépend rek ci ni nga koy jàngatee des fois aussi nit ki mën naa tàkk parce que loolu suñu cosaan la mais mm. des fois aussi nit te mm. mm. ah. koo gis xam ne effectivement daana diw daan doon na diw ah, c'est que xam nga takk yi moom kooku suñu suñu suñu suñu suñu suñu kii la suñu cosaan la te loolu aussi bu jógee ci làmb làmb jot am cafka waaw ah, loolu bu jógee ci làmb làmb jot am cafka mm-hmm. làmb dafa ànd ak bë dafa ànd ak sabar ay takkaay làmb dafa ànd ak

Euh, diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko mi nga xamante ni Cour suprême dafa daal di dëggal daanaka atte bu euh, cour d'appel loolu moom bokk na ci xibaar yi nga xam ne daanaka bokk na ci gën a fës euh, ci xët yi ñu bàyyi rek peut nga xool ban lañ ciy càmbar ah, peut-être également am na lañ ca war a wax boobu kese boobu kese la mhm. parce que waxoon naa ko fi démb newoon naa leen du bokk te du bokk parce que aussi en matière politique aussi nit ku ne da ngay a xool mu tàmbalee mais man le fait que cour suprême confirmé décision bi nga xam ne cour d'appel jël nañ ko teg ko ci kii ndodd Ousmane Sonko. na solo na am li ma amal solo mooy tuuma yi nga xam ne dañ koy yëkkati teg ko ci ma dodd yi ki nga xam moom di Mame Mbaye Niang. am mhm. ay dafa am solo te loolu maa ngi ci interpeller suñu justice bi parce que tuuma yi nga xam ne ni Ousmane Sonko yëkkati na ko daal di koy teg ci ndodd Mame Mame Mbaye Niang. Mhm. Ousmane ko wax na ko mais fekk na am na ñu ko njëkkoon a wax. tout à fait avant moom Ousmane Sonko peut-être Ousmane Sonko mooy ki nga xam ne nii moom mooy candidat bi ñu waroon a éliminer jaaree ko foofu mais avant moom mii di Ousmane Sonko mais am na ministre ku ci mel ni Yankhoba Diattara toog na fii ci benn émission télévision accusé Mame Mbaye Niang comme dafa détourné 27 milliards ci biir Prodac ku ci mel ni Amadou Ba mii nga xam mooy ministre des finances. moom si jëmmi boppam toog na ci émission ci benn émission télévision. Mm-hmm. confirmé effectivement am na rapport boo xam ne IGF def nañ ko gone ne am na ay manquements yu toll ci 29 milliards ci biir Prodac. effectivement et pourtant ñooñu Mame Mbaye Niang attaqué wul en justice. Mm-hmm. kon tey jii Ousmane Sonko peut-être bi mu def peut-être xaw ma erreur la wala xaw ma erreur parce que nekk peut dañu ne na indi ay preuves. Mm-hmm. mais l'essentiel ak lu ci mënti am nañ jàpp ne. moom mii di Mame Mbaye Niang li nga xam moom la ko Ousmane Sonko tuumaal moom am na ci ay nit ñoo xam ne ñoo ko ak nekk na moom ci pouvoir bi ñoo ko njëkk a tuumaal. tout léegi nag question bi ñu war a mën a poser mooy tey bu fekkente ne. cour d'appel àtte na wax na ne Ousmane Sonko dafa juum ci Mame Mbaye Niang. Mm-hmm. tëj ko juróom-benn weeri kaso boole ko fayaloo ko amende bu toll ci 200 millions de francs CFA. Mm-hmm. te loolu li ma ci jaaxal rek moom mooy que bu njëkkoon maanaam a àtte mbir dañu ko tëjoon moom deux dañu tëjoon Ousmane ko deux mois de de prison. teg ko amande bu toll ci deux cent millions de francs CFA. boo fàttaliku ba verdict boobu lay génnee moom Mame Mbaye dafa génn rafetlu ko. wax ne kontaan naa parce que man li ma intéressé woon. mu nekkoon ñu seetal sama der avocat bi nga xam ne avocat tubaab la nekkoon na moom doon ko layil moom aussi bu mu génnee dafa ne lii destitution bu neex la parce que sële yooyu jur demul neen mhm. maanaam. Mame Mbaye Niang si nañu deram waaye Ousmane Sonko dana bokk ci course bi. Mhm. ba mu ko waxee laa ne Abdoulaye Bopp ca rajo ne ko gars yi dañoo juum euh, décision bi àdduñu si. Mhm. ci le lendemain effectivement ci le procureur def appel moom Mame Mbaye def appel. parce que seen objectif c'est ça seen problème. Mhm. seen objectif ne c'était pas que euh, Mame Mbaye Niang mais seen objectif mooy fexe ba Ousmane Sonko du bokk élection présidentielle moo tax affaire bi ci lañ ko yóbbu cour d'appel ba fàttali ko jamono jooju léegi nag ñoom li ñu bëggoon am nañ ko mooy fexe ba éliminer Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi di ñëw kooku seen cadre politique la waaye ñun population bi li ñu intéressé suñ ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yi nga xam ne nii dañu koo luubal dañ koo luubal ci biir Prodac nañuy wax xaalis bu fan la jot fan parce que ab rapport la boo xam ne waa IGF ñoo ko def inspection générale des finances moom moo ko def ba OFNAC aussi santaane waat encore benn rapport ci biir ci ci am na ay manquement yu toll si ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent biir ko ak fan la dugg te ak juróom-ñeent yi nga xam dañ ko luubal ci biir Prodac mais le procureur demandé à ce que va ñu ubbi ci ab enquête situé les responsabilités ñu wax nga xaalis boobu la anamu parce que xaalis boobu la aussi quoi qu'on dise sama soxna Aïssa mm-hmm. xam nga il faut que ñu xam ne moo tax maa ngi interpellé ki fi war a nekk président de la république ëllëg nañ jàpp ne ci nguuru Macky Sall na fi gis waa nag wax ne ne génne nañ fi plus de 30 rapports bu Diakhaté moom Seynabou Yaay Diakhaté moo ko waxoon ay jamono. mais mhm. génne nañ fi plus de 30 rapports jébal ko procureur mais jusqu'à présent amul suite. mais naka la mën a taxawalee benn corps boo xam ne dañu li ko tax a jóg mooy fexe ba jéem a di luñut benn mbir. ñooñu nga jël leen envoyé leen ñu luñutu gis na ne ñii kat dañoo sàcc jël xaalis bi jox teg ko jël affaire bi teg ci loxol procureur chaque procureur pour mu am si ay am si ay poursuite te jusqu'à présent yi mu jur fenn. enquête bi dañu tëkkee ay millions. c'est ça le problème léegi nag il faut que ñoon ñu wax ñu ñun ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yi nga xam ne ni waa IGF dañu gis ne dafa am manquement ci biir Prodac même ñu wax ñaar fukki milliards juróom-ñeent kan moo ko lekk ak fan la dugg parce que lii war ñu koy bàyyi mu yàlla te loolu maa ngi population maa ngi ci ak interpellé les acteurs de la société civile maa ci interpellé kilifa diine di ci interpellé ñëpp te xam na ne mbir yi nekk xam nga dem di li leen intéressé woon mooy éliminer ab candidat ok éliminer ne ne ñaar fukki milliards ak juróom nañu wax xaalis boobu fan ko dugal. Ah en même temps aussi nañu wax ñun problème Mamadou Mamadou Dia Ousmane Sonko peut-être 94 milliards yi TF 14 cas 51 nañu wax anam fu mu fu mu ci toll. même Macky Sall jeex na te actuellement dañuy ay rapport mais dafa am ay rapport yoo xam ne il est temps à ce que ci taabal bi. pour président ëllëg bi fay ñëw mu indil ñu ay ay ay ay par rapport ak la nga xam ne ay milliards la te ay doomu aadama mu réer seen loxo. tuuma yi nga xam ne ni Ousmane Sonko yëkkati woon na ko teg ko ci Mamadou Mamour Diallo. Mhm. muy 94 milliards yi. mu soxal TF 1451R nañu wax tuuma yooyu 94 euh, euh, milliards yooyu fan wax aussi fonds force Covid bi nga xam ne gars yi def nañ ci ab rapport épinglé ci ay ministères. Mhm. au lieu ñu woo ces personnes concernées di leen déglu mais seen second la ñuy woo. pour lan pourquoi léegi nag nañ ñu wax fond force Covid 19 boobu leen milliards yi nga xam tudd nañ ko si ne ay nit jaar na ci seen loxo mais nañu wax milliards yooyu la fan lañ ko dugal. ñu dañ koo teg pour ndigg ay ministre bu fekkente ne defuñu li kilifa gi santaane <laughs> pour lan. mais c'est ça le problème. on est dans quel milliards yi nga xam ne tudd nañ ko ci affaire armement. mais yooyu dañ ko war a jël daal ko tudd daal di koy léegi nag lan moo leen tax tey ñu jël benn rapport. boo xam ne tax dafa laal benn candidat boo xam ne jàpp nañ tey jii bu élection présidentielle yi demee bu ñu demee ci élection présidentielle yi. Hmm. avant midi ñoom ñëpp dañuy dañuy lem seen dañuy lem seen bagage dem. Hmm. ñu xaar ñu profité éliminer ko. léegi nag li ngeen bëggoon def ngeen ko nee ngeen éliminer ngeen ko kooku kon seen cadre politique la man dama ci intéressé wu. d'accord mais li ma intéressé man mooy la nga xam ne yëkkati ko ci ay tuuma teg ko ci ndodd ma Mame Mbaye Niang mhm. mais ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent am na fi te waa IGF wax ko mhm. rapport aussi ñëw confirmé ko nañu wax nañu wax Amadou Ba ñëw wax ko Yankhoba Diattara aussi accusé woon ko plus de 27 milliards mhm. nañu wax xaalis boobu léegi ko ana moom c'est une affaire politico-économique c'est parce que tamit sunu ndaw yi Seydina daguma la nga baal ma sunu ndaw yaa ngi dee ci géej gi ndax ñàkkum xëy sunu euh, euh, jeunes yi ñu ngi sonn ci wàllu wàllub euh, ñàkkum xëy somage gu tar gi nga xam ne ñu ngi koy dund te Prodac dañ ko fee teg woon ngir mu lijjanti situation yi yëpp ndax projet mbay la goo xamante ni bi mu ñëwee ñëpp dañoo ne c'est venu à son heure def ci nag koppar gu takkoo takku di ay milliards mhm. jox ko loxol kii ah, jiital ko muy Mame Mbaye Niang hmm. boobaak léegi nag moo nekkoon ministre de la jeunesse Amadou moo nekkoon de la ministre de pour mën a régler situation kon jàpp naa ne mbirum Prodac bu jàlloon na mu war a jàllee hmm. xale yi liggéey ci nañ ci war a liggéey financement yi génn ci nu mu war a génnee xale yi duñu bàyyi fii liggéey bi fii bayum bi Sénégal di dem bayi ja Espagne gee wala di dem bayi ci Italie gee kon li mu war a régler bari na trop kon Seydina Omar Ba tey vraiment hmm. indi nga sujet boo xamante ni vraiment lu ñu war a taxaw li ñu naan question bu ñu war a a poser la question bu ñu war a mën a poser la il l'on reparle de cette affaire-là de Prodac. Mmh. Au-delà de la condamnation d'Ousmane Sonko, vous l'avez fait, c'est des questions politiques mmh. et réglées politiquement, d'accord, mais au-delà de tout dafa am aspect économique et c'est des milliards yoo xamante ne sénégalais mënoon nañ ci dund mm. tey am ci ay euh, donkaasi gi goo xam ne mooy tax ñu des ci ci dëkk bii mm-hmm. bañ a dem di jéggaane ci géej gi xam nga moo jékki-jékki dégg ñu tudd ay milliards na ay doomu aadama dañ koy nduubal son aysa da ngay sidéré nga est-ce que tey jii boo doon jël ay 10 000 10 000 di ko takkalante boo doon doon romb ba gàmmi du tax benn milliard bi jeex. nga gis benn ñi dafay jékki ñu ko benn institution mu ne ko France te du mujj fenn Sénégal ngay gis ni da ngay jékki-jékki bi jox la benn institution. Mm. ñu def ci yow rapport épingle la au lieu yi lijjanti ko mais parce que presque politique la. le cas de Karim ak ñaata rapport la gars yi génne

amul droit boobu. moo tax li nga xam ne duñ ko nangool président Macky Sall ci nguuram mooy le fait que ñu taxawal fa ay institutions yoo xam leen tax a jóg mooy ñu jéem a fexe ba lépp lu aju ci wàllu guerre la wàllu corruption ak ñoom seen ñu fexe jëlee ko fi ñu def seen liggéey ni mu waree ne ku ci mel ne Seynabou Ndiaye Diakhaté. Mhm. def rapport plus de 30 rapports jël ko daal di ko jox procureur procureur euh, def ci benn suite. yow aussi président rappel ñu jël ay rapport ko naka la ñu mën a jàppee ay nit ne vraiment ñii dañoo sàcc plus de 138 milliards de francs CFA ay Karim Meïssa Wade Khalifa Sall 2 milliards de francs nga ñëw ne nga leen gracier parce que affaire politique la est-ce que léegi cadre politique moom moo gën tey ji mbir mhm. politique est-ce que tey jii moom moo gën tey jii ka affaire économie. te li gën a garaaw mooy koo xam ni sàccul deful moom mooy paradoxe bi am soxna Aïcha. yow koo xam ne ni sàccul deful. koo xam ne ni fépp fu mu mën a jaar gars yi nee ni loo dafa sell mhm. kooku tey jii nga fas yéene xañ mu bokk ci élection présidentielle yi di ñëw mhm. bàyyi nag ñoo xam ni seen loxo dafa seen loxo dafa tax ay nit ñoo xam ne la jàpp loxo si poos wax ni ay sàcc lañu ñu war nii yoonam maanaam loxoom setul ndax lan ndax yëkkati na ay tuuma teg ko ci dodd am ministre ci ministre boo xam ne nii moom Ousmane Sonko tuumalu ko mais ay forondoom ñoo ko njëkk tuumal maanaam Ousmane Sonko tuubalu ko de. da ko doon tuumal ba faf juum. ñu ne ko juum jooju nga juum jub ci lañ lay ci lañ lay condamné waaye la nga doon boole moom dañ koy teg ci suuf. amul sens si en fait c'est c'est un peu paradoxal. Euh, wuy dàq leen ko maanaam euh, wuy jàpp leen ko sàcc baa ngi dugg kër Salma. Hmm. mu ne la sàcc bi génne la dugg ma kër Salma kat mbëllee maa ngi dugg kër ay Aïcha danga maa difaame waaye léegi sàcc bañ doon wax ne nag moom dafa dafa kii nag. maanaam nañ ko tënkee ci noonu rek daal pour bañ a tudd tur ndegam léegi moom jàppaan gi ba tey jeexagul mm. te nañoo ne nañu def attention jeexagul mais euh, j'ai entendu beaucoup beaucoup de gens dire que tey jii Ousmane Sonko Ousmane Sonko mm-hmm. est éliminé mm-hmm. man je reste sur ma faim toujours mm-hmm. li ma waxoon loolu laay wax ba tey tey jii ba tey jii li nga xamante ne moom la ñu wax démb dégg nañ maître Ciré Clédor li déclaration bi nga xamante ni euh, defoon na ko dégg nañ aussi li nga xamante ni tey jii maître Bamba Cissé xëyee na ko ci ci ci ëttu journaux yi. Mhm. dégg nañ maître du Ndoye ki est quelqu'un de très mhm. respecté. Mhm. koo xamante ni xam màcc na ci wàllum yoon. am ay développement yu bëri yu nga xamante ni tey jii def na ko ci dégg nañ suñu ay confrères yu bëri di wax que est-ce que décision bi dafay rétro rétroagir. parce que Ousmane Sonko dossier wam dugg na déjà conseil constitutionnel. est-ce que dañuy dem jëlaat dossier bi pour introduire ci. li nga xamante ni moom la ñu décidé démb wala dañuy jëliwaat casier judiciaire am. ne leen aal leen ñun ñu bind ko ci comment ça va passer mhm. ça va se passer dafay rétroagir wala mhm. euh, euh, avocat Ousmane Sonko koy mën nañu dugal mandat euh, rabat d'arrêt mhm. di autant de question yu nga xamante ni ñu ñu ciy posé mais comme nag suñu xam-xam màccul ci wàllum yoon on reste sur notre fin fin mais duñu toog am fit gu toll ni Ousmane Sonko du bokk loolu moom duñ ko wax parce que c'est pas à nous de de de de de de le décider. te bu fekkente ni même bu fekkente ni yoon dafa dëggal daan bi nga xamante ni moom la ñu daan aussi am na débat buy jug ci. Euh, six mois wala plus de euh, six mois avec sursis c'est-à-dire six mois un jour donc c'est un débat boo xamante ne soulevé nañ ko on mhm. attend de voir tay ji la suite mooy li leer mooy mhm. Aïcha mhm. Ousmane Sonko tey ji li ñu war a retenir mooy sur le plan national Ousmane Sonko gagné na le débat public sur le plan international Ousmane Sonko gagné na l'opinion publique te nag nañu bàyyi xel ëllëg parce que tout peut servir de jurisprudence mm-hmm. te tey jii dañuy wax ay c'est des question politiques man je ne dirai pas ça c'est des questions politiques yoo xamante ni dafa lii ak la justice mm-hmm. te quand il s'agit de justice tey askanu lëmb lay lay lay lay engagé mm-hmm. parce que Aïcha tey jii gis nga yow sa nekkin ci société bi dafay dépendre ci état de droit bi nga xamante ne tey moom la ñu moom la ñu tëgg fii. dëgg la nga koy doxee. ma koy doxee am ay normes yoo xamante ne daf ñu régir. effectivement te buñ ko wàccee tey. ndax lan politiquement. Mm. politiquement boobu noonu mooy am tey ji conséquence tey ci suñu dundin. Ah te li may wax rek nañu xalaat ëllëg. Mm-hmm. jurisprudence dafa am. Mm-hmm. kut kut kut naa ko faagaagal. Mm-hmm. pour lan ma protéger. ndax lan xëy na yow ak sa njaboot wala yow ak say ñoñ. def ngeen fi loo xamante ni xalaat nga ni waa ji su ñëwee mën na ma topp loolu pour lan on le sait on a compris. mais on attend de voir la suite li ñu leer te wóor mooy. Mhm. dañu naan focus bi ñu waxoon ci la ne ba tey focus. Mhm. te jeunes yi nga xamante ne tey jii ñu ngi ak seen i carte d'identité nañu focus ci dem mise à jour parce que am na yu bëri yoo xamante ne Aïcha nemmeeku nañ ko ci fichier bi. Mhm. nañu alerter ci loolu. te bàyyi diversion bi. am na ñu bëri ñoo xamante ne dem nañu ne pare parrainé ji ñu ne leen vous na figurez pas sur la liste. c'est pas parce que nekkuñu ci. alors que si mais dañoo am seen voilà c'est derrière la carte que dañu war a voter def na ci mm-hmm. seen bureau et tout. Mm-hmm. c'est juste que am na ñoo xamante ni dañu war a dem mise à jour ak seen i carte d'identité nañu dem ñu def ko mm-hmm. focus sur sur l'essentiel le 25 février qu'Ousmane Sonko soit candidat ou pas il sera faiseur de roi parce que il a son mot à dire et son électorat coûte que coûte vaille que vaille dafay compter euh, li nga wax yëpp leen donc moo ma ci moo ma ci ah. mhm. euh, euh, bi nga xamante ne moom la président di prôné dafay mën a feeñ tout le temps ci nekkinu askan bi donc ñun devoir la si ñun seen citoyen bi mhm. ñu xam kan la ñuy sànnil suñu carte xam kan la ñuy votel parce que kooku politique publique bi mu bi mu tënk rek ñun ci la doxee bu baaxee ñun ci la ñuy baaxee bu bonee nag ci la ñuy nërloo ba faw day am njeexital kon politique publique dafa am solo bu baax a baax baax Seydina mhm. Omar Ba. Euh, xam nga peut-être man bëgg naa tamit wax ci benn point. aussi balaa ma pour mu jeex. effectivement oui. c'est-à-dire que affaire affaire yi ngeen di posé xam nga problème mooy que. Mhm. Euh, des bon des yenn nit ñi bon yenn nit ñi boo leen di ñuy wax. Mhm. wala sax bon ñu nekk ak Ousmane Sonko wala avocat Ousmane Sonko jusqu'à présent pour man dama gëm ne ne peut-être dañoo gëm ne ne Ousmane Sonko war naa mën a bokk élection peut-être dañuy jéem a li gars yi naan dañuy mais vu situation bi ni mu demee tey jii ku la wax ne Ousmane Sonko dina bokk ci élection présidentielle doo ko gëm man mun ma ko gëm. Mm-hmm. mais le dernier mot revient mm-hmm. ay problème justice. mais Ousmane Sonko mi moom mooy njëkk xarab suñu justice bi ne moom gëmu leen bien tey jii avocat am nee nañu mbir yi dañu ko yóbbu ci àll justice mais moom mooy njëkk tey defee suñu justice wax ne justice bi man gëmu leen te bépp décision boo xam ne jëlee ko dafa nekk mais exécutif moo nekk ci ginnaaw soxna Aïssa gis na ma lay xamal benn affaire nga xam ko gis nga Sénégal yi wala sax Afrique en général suñu con suñu maanaam suñu pouvoir ni ñu leen tëggee tant que changé ko la ñuy dund. man maa la ko wax suñu pouvoir yi actuellement en Afrique. ñun amuñu ay président ay buur lañu am. et puis ça c'est qui est dommage et puis c'est ça c'est qui est dommage dama ne la euh, dama ne la instant bii nii bu ñu waxante dëgg fii rek ñun yi ñu ngi dund situation bi ñu mel. Mm. président ba mu may toog di définir ku ko neex. ku ko neexul du bokk. yaakaar nga tey ji président Macky Sall nekk président président de leen désigné. Mhm. conseil constitutionnel ña fa nekk président Macky Sall leen désigné. mais wolof yi dañuy faral di wax na du du du bëgguma accuser. Mhm. mais am am na yoo xam ne xel moo koy mottali. dama ne la gis nga Sénégal gii nañu waxante dëgg soxna Aïcha. gis nga gis nga waa Pastef bu ñu fooyee seen xel quoi. Mm. waa Pastef bu ñu fooyee seen xel gis nga bu ñu gëmee ne Ousmane Sonko dafay bokk ci élection présidentielle dañuy nax seen bopp. Ousmane Sonko du bokk ci élection présidentielle yi ñëw man maa la ko wax mm. bii tournée yi mu du mën a bokk ci élection présidentielle yow bu ñu fooyee seen xel. d'accord dañu nekk ci nguur goo xam ne ni dañu nekk ci pouvoir boo xam ne ni pouvoir bi président Macky Sall président bi du mën a président Macky Sall mais président bi dafa bëri mm. la ñuy wax ne dafa am pouvoir exécutif am pouvoir législatif mais pouvoir président assemblée nationale kan moo koy fal te duñ pouvoir législatif la nan ma wax rek président assemblée nationale actuellement kan moo ko fal hmm, hmm? ministre de ministre de la justice bi nga xam mooy patron conseil supérieur de la magistrature kan moo ko fal. conseil supérieur de la magistrature ñoo fa nekk ay magistrat kan moo fa dugal. kon faaw ñu changer nag yow bu fekkee ne nga nekk ab gëm nañ da nga war a défier président Macky Sall. ci fekk yaa yaa yaa ko yóbbee sa bopp. malheureusement du yàlla du yonent. gis nga président la njiit la bu ñu jox ay pouvoir buy doxalee mais la la. Euh, moom pouvoir yooyu la la la non cest à ne nekk opposant ba di af di affronter. opposant nangul nga nangul Seydina li muy wax nii bu baax a baax li muy wax lu am solo la maanaam c'est-à-dire le jël président def ko yàlla. mais parce que ñoom ñoo ko bëggee noonu Sénégal ñoo ko mais dafa war a nekk dans la peau d'un opposant dénoncer oui di dénoncer li nga wax léegi nii jël xaalisu askan bi di ko saax di ko mm-hmm. caxar caxaree mm-hmm. Aïcha au delà d'Ousmane Sonko yow mën nga koo def journaliste nga journaliste nga rôle d'alerte da nga am mm-hmm. il était dans sa il était dans rôle mais mais nangul nangul aussi Seydina Kane que li lay wax aussi mënuñu koo teggi mooy ne excès de pouvoir bi d'accord d'accord ah, pour leeral aussi oui en opposant du question que tout simplement da nga war a nekk di da nga war a da nga war a da nga war a di dénoncer mais bokk na ci rôle soxna si soxna s'il te plaît. bokk na ci rôle am il faut le dire taxawoo fi taxawoo fi comme un comme une militante. Ah non arrête il faut pas faire ça léegi même wuy ma même léegi. boo ma woowee ci loolu du baax waaw même tuuti rek s'il te plaît. respecté ma rek ma respecté la waaw bu ma waxati loolu. waaw même tuuti ok. même tur ñu continuer s'il te plaît. Ah, on se respecte rek sur le plateau. même tur ñu continuer non il <laughs> bon léegi même tur ñu continuer. c'est que un opposant je veux dire. Mm. un nekk warut nekk koo xam ne nii. Mm. effectivement dafa war a di dénoncer tout simplement saa su ne. Mm. mais un opposant dafa am benn gis-gisam ci pouvoir bi. Mm-hmm. un opposant dafa war a contribuer ci développement pouvoir. ça ne da nga war di dénoncer non. mais un am nga benn taxawaay boo xam nga koy def pour pour bokk ci li nga xam dafay développer sa réew léegi nag mu li ma xel mënu koo jindi te daf du ko jindi sa Sénégal mm. te dama ko yàgg di ko xeex man ci Séné ci ci sama intervention dama ne dañu nekk ci dëkk boo xam ne dañu nekk ci réew xam ne nii fii rek mm-hmm. pouvoir bi fi nekk tey ji changé wuñ ko mm-hmm. xam nga ñu ngi def ci élection présidentielle xam nga ñu ngi dem ci élection présidentielle mm-hmm. fu mu toll ñu ngi naan président bu war a tab nan la président ba président bi war a tab mais est-ce que tey ñu ngi discuter pour xool tey ji président bi bu ñu ko tabbee ba doppi yan pouvoir moo war a teg war ci ndondam est-ce que jéem waxtaan di jéem a xool pouvoir bi li président bi li ñu ko jox ci pouvoir dafa bari est-ce que duñ ko waxtaanee d'abord di a xool naka la ñuy lijjantee pouvoir bi ba noppi su ko defee nag ah ñu soog a ci élection présidentielle yi mais ñun Sénégal amuñu président ñun Sénégal buur lañu am d'accord léegi boo taxawee pour défier ko. Mhm. man sama appréciation rek lay doonaa peut-être Seydina nga nga jéggal ma ci li may bëgg nga wax nii mais euh, wàllum opposition je me dis que Ousmane Sonko wàccoo nag Sénégal ci côté opposition. wax nga léegi léegi ne euh, peut-être euh, dafay dénoncer rek warul yem ci dénonciation rek mais non je dis que lépp lu opposant di taxawee ci réew moom taxawee na ko dénoncé na xeex na ànd na ak nguur gi ànd na ak nguur gi ci benn fànn et pourtant il a mais terewul deux ans après mu euh, euh, Sénégal am ay jafe-jafe qui l'aurait cru que Seyd euh, Ousmane mii dina dox ba pale joxanteeg loxo Macky Sall ñu toog waxtaanee situation mbas mi et pourtant il a été au palais de la République toog saa fonteeg le président Macky Sall ndax intérêt Sénégal moo nekkoon en ak mbas mi buñ mm. ci noppee bi Sénégal amee mbégte ci li nga xam ne moom moo di Coupe d'Afrique bi aussi il a été là auprès de tout le monde pour mën pour mën pour mën kii donc man je dis que boobu bu fekkente ne intérêt Sénégal rek rek rek rek rek moo tax a jóg opposition opposant Ousmane Sonko bay na ci waaram am na benn fenn fooy toll foo xamante ne nii boo demee ba opposant lu ne nii nga négocier lu ne nga négocier dil lay gën a nuróol xëy na moom moo tax mu radical un peu ci côté boobu noonu te loolu aussi mënuñu ko ko bañ a nangul parce que moo ko gañee tax ndax la doon nëbbu ci système bi moom la jéem a feeñal donc nekk aussi fait que peut-être ne euh, le président Macky à quelle fin au prix même de d'entrer en prison dugg na kaso dugg na kaso mais tey moom moo ko jox di euh, bu bul fàtte ne tey jii Abdoulaye Wade. li mu li mu bokk gi lan a. voilà c'est ça naa bokk gi. loolu mooy à quelle fin. bi ngay laajte naa bokk naa bokk à quelle fin amul sens. xam nga euh, c'est c'est c'est dommage. Salma s'il waxal ñu pas Assane mu jéem a. approché wu nee na il arrive dans quelques minutes. c'est c'est Euh, c' est dommage que tey jii euh, politique bi ni mu bindoo. ci Sénégal euh, c' est que c' est ça grave. Mm-hmm. gis nga en matière politique soxna Aïssa wax naa la ko démb. gis nga politique wax naa la ko kenn démb te du ma dañ la ko wax. gis nga mm-hmm. politique. Mm-hmm. du ci xool mais politique ci bopp la. da am yow benn stratégie. da am benn projet booy porté mooy fexe ba nekk au pouvoir. am nga yoon woo jël ba tey ji Sénégalais am nañ ci yow confiance. Mm-hmm. am jox nañ la bopp. Mm-hmm. mais yow naka nga war a def tey ji ba fexe ba Sénégalais yi nga toll foo xam ne daañu la mën a sànni seen xom nga mën a bokk loolu mooy problème bi tey ji xam nga problème bi Ousmane Sonko mën na di coow si mbedd mi. Mm-hmm. mais bu bokkul du sotti. amul sens quand même. c'est na nekk di kaas du nekk nga dugal ci génne ay soxla mais bu bokkul kon c'est-à-dire que da ngay wër ne xeex bi ñuy xeex depuis xeex sénégalais xeex bi ñu doon xeex depuis boobu léegi tey jii dafa nax saay et c'est ça ce qui gis nga problème qui se pose mooy gis nga man li may réitéré waat dafa lay jeexale mm-hmm. parce que man taxawaayu taxawuma fi pour sànni Ousmane Sonko xeer mm-hmm. taxawuma fi pour sànni Amadou Ba xeer man damay mm-hmm. analyser dem ci digg bi oui c'est ça ci digg bi laa ne farlum ma sànq farlum ma dem ku ci def yoon mu wax la ku ci defu ma yoon la wax dama ne Ousmane Sonko hmm. dafa accusé Mame Mbaye Niang ci lu ñu wax hmm. ne dafa luubal 29 milliards de francs CFA mu nekk loo xam dafa sukkandiku ci rapport boo xam waa IGF ñoo ko génnee hmm. waa of nag ñenn ñi sax xaw nañu ko confirmé mais li gën a garaaw sax mooy Amadou Ba bi nga xam mooy seen candidat ñoom mu confirmé ko ci benn débat politique débat télévisé léegi nag la fait que vraiment ñoom ñu ne Ousmane Sonko Mame Mbaye dafa dafa tuumal Mame Mbaye ok mais ñun li ñuy xaar ñun ci sénégalais actuellement te moo ma intéressé man. ñu leeral mais day Ousmane Sonko du ma Samba. Mhm. mais li ma intéressé man mooy suñu ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yi nga xam dañ ko dugal ci biir Prodac. Mhm. nañuy wax xaalis boobu lay fan lañ ko dugal ak dañ ko leeral. Mhm. meilleure force Covid bi. nga xam ne ni actuellement nii. gars yi ubbi nañ ci ab enquête wax fond force Covid 19 boobu fan lañ ko dugal. d'accord alors en tout cas. Euh, c'est que mboolem rapport yi nga xam ne gars yi génne nañ ko milliards. nañu wax fan lañ ko dugal. nañu wax fan alors Seydina peut-être bëggoon nañu wax peut ci euh, euh, une tribune bi malheureusement temps bi xot nañu bu baax baax mais Serigne bu ñu ci mënee jàppale rek une tribune bi. Euh, Seydina man xaw ma ndax li ma gis nga gis mais euh, euh, de qui se moque t Babacar passe là aussi sa ancien premier ministre échoue li ma si jaaxal rek moom mooy lan moo tax peut ñuy def comparaison bi man d'accorduma ci parce que tamit Anta Babacar Ngom ak lu ñu mën a wax lu ñu mën a wax ñii peut-être dañu rester des oppo des opposants yoo xam ne ni presque à li ñu gis ci langue politique jamono ci bariwul le cas de Idrissa ab dul mbay man li ma gis Anta Babacar Ngom en tout cas ci tali bi ci mbedd mi ci média yi gisuma leen ci donc Anta Babacar Ngom bu leen devancer loolu war naa mën a nekk euh, lu jëm aussi ci euh, ci taxawaay bi moom ñoom ñi ci des ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nañu xoolaat seen taxawaay peut-être mais pas que di wax ne de kii sa mocton Anta Babacar elle a bien travaillé pour obtenir ce qu'elle aujourd'hui man je dis que parrainage bi da ko da ko mérité quand même parce que quoi qu'on puisse dire euh, mu ngi def yoonam mu ngi elle fait son son chemin mu ngi récolter ay parrainage man en tout cas sama gis-gis la quoi peut-être Seyna di la di la bu baax a baax. di rendez-vous ah. lundi prochain. incha allah jërëjëf Salma <laughs> tamit mais tu restes avec nous. pour la wax rek bu dëngee nañu ko jégal. <laughs> dara dëngu fi. te xam ne defar rek mooy tax a jóg. Ah. dara dëngu fi. <laughs>